Fatima euh, merci Khady euh, monsieur le maire euh, gis nañ ne ñu bëri jàpp nañ ne proposition wu réforme yi kii lay doon li nga xamante ne moom moo di recul démocratique tey est-ce que du firndeel li nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy njortu ci li ngay daanelee léegi nii mooy ñetteelu mandat bi nga xamante ne njiitu réew mi bëgg na ko moo waral ñu bëgg a nommer ki nga xamante ne moom moo di léegi maire wu Dakar. te jiitum réew bi dina dox troisième mandat bi. si naka. waxuma leneen waxuma da koy jéem taxaw sénégalais yi kese képp rek donc ñoo ko mën tey mu def loolu te sénégalais ñu ngi may déglu te xam nañ lan lay wax ak fu may waxee mhm. ci ñoom nag la des bés bu sénégale yi jógee tey ñu décidé que suba suñu paree julli ci àjjuma bi dañuy régler seen problème seen problème day réglé wu mhm. mais parce que sénégalais yi am nañ capacité wu lijjanti lu mel noonu am nañ fitu dox lu mel noonu te sañ nañ dox lu mel noonu la preuve big rek ci ci ndar ñuy nekk foofu di yëpp moo di lenn yëpp ay waxu ay licence ak ay waxu ay xawma ay pénalité dañu lijjanti seen problème ci demi journée parce que régime bi loolu la comprendre mhm. étudiants yi ba ñu am ay problème dañuy lijjanti seen problème ci demi journée sénégalais yi bés bu ñu maaree ci Macky Sall ñoom xam nañ lan moo lan mooy seen lan mooy seen warugar xam nañ ko parce que moo nekk ci dëkk yow yaa ngi ne sànq recul démocratique lii du recul démocratique yebel la yebel la dafa am différence entre recul démocratique ak yebaate maa ngi jégalu nag seen auditeurs yi. Mhm. ak seen téléspectateurs yi parce que am na fu ngeen xam ne suñu fa eggee il faut dire les choses de façon crue. Mhm. au Sénégal aujourd'hui on vit en dictature. Mhm. lii moo fi am bugguma nga bokk élection doo bokk yow da ngay bokk yow doo bokk yow da nga dem akay ay ngeen marche palais ngeen nekkoon juróom-ñett xaw ma juróom-ñeent ñu bàyyi juróom-ñaari xaw ma juróom-benn yi ñu bàyyi ñëpp sof yow loolu dictature la. Mhm. moo tax man tamit maa ngi profité ci mhm. occasion bi pour interpeller dinaa si ñëw pour interpeller l'église catholique sénégalaise mhm. l'église catholique sénégalaise dafa nar a wax ci waxu Guy Marius Sagna parce que d'abord catholique la c'est une référence dans la jeunesse catholique Guy Marius Sagna lu tax ma ne l'église catholique sénégalaise doit se prononcer ba ñu jàpp Khalifa Sall am na lu ma mën a seede man ci dem si yàlla Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ci ay tànk yu mu doxoon. tout à man kenn nettaliwuma ko man fekkee naa rëbës njabootu Serigne Touba au plus haut niveau ay kilifa ay kàngam ci yoonu murit ñëw di dox si ci ndigalu xalif général ñëw di fekk Mbaye Touré daaf de la ville de Dakar di waxtaan ak moom. Mhm. te moom Serigne Mountakha xalif général des Mourides. al na fi yàggatee te wér balaa mu doon xalif général de Mourides moom ci boppam. sol na ay dallam dox si euh, nu mu tuddati Mbaye Touré ñëw fekk ko ba ci kaso bi ci euh, euh, rëbës ñaanal ko. donc Touba du bàyyi ay ay ay ay ay ay ay ay ay njabootam. c'est valable aussi pour Tivaouane sous Abdoul Aziz Mame Abdoul Aziz Sy Al Amine. donc l'église catholique du Sénégal doit se prononcer sur le cas de Guy Marius Sagna c'est une c'est une prise d'otage c'est de la dictature injustifiée je reviens à ce que j'ai dit mooy lu ma wax ci wolof yi yebel la yebel la mhm. du euh, ci yebel boobu noonu lay ñëw est-ce que tey jii mën nañ njort de kon population bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Dakar la ñu yàpp bu baax a baax du moment où euh, évaluer ñu bu baax acte trois de la décentralisation ñuy ñëw di defaat beneen proposition de réforme ci statut euh, ville de Dakar oui mais kooku je pense que loolu maintenant la balle est dans le camp des Dakarois man awma xel muy ñëw <laughs> maa ngi koy nuyu au passage ndeysaan euh, commissaire euh, Arona Sy moo nekkoon commissaire central mu ngi may jàpp man Barthélémy Dias le 20 juin mu jàpp mu jàpp ma Sandaga ñu dem ba ci bureau ma ne ko maa ngi la koy waatal laa la wax ni de loi bi du jàll gis ngeen affaire statut spécial de Dakar <laughs> wallaay bés bu Macky Sall reppee ba ne day avancé ci lii dina xam ne lépp dëgg la parce que il faut qu'on se comprenne am na fu nga xam ne suñu fa eggee nañu ñàkk lépp ñépp a ñàkkandoo wante am na lu nga xam ne kenn du toog di ko seetaan te yàq moo gën a yomb a defar Macky Sall dina dina génn ci wax ci raxas ci ay loxoom wante wala dina xam ne ne que Dakar un temps soit peu ragal du fi yeewu parce que nag trop c'est trop munoo def di def di def di def ñuy bàyyi rek di def comme yow da nga jàpp ne kaso nga am comme répression. Mhm. bii yoon ñi ñi suñu naree dem kaso dañuy dem kaso ci du ko jar wante yow tamit dina saf dina weex kat ci yow. parce que waa Ndar. Mhm. ëpp ñu fulla da waa Dakar waa Ndar ëpp ñu fayda waa Dakar. Mhm. alors et je veux rappeler une chose au président Macky parce qu'il l'oublie je veux lui rappeler que l'université de Dakar est à Dakar. fa rek laa yem ci wax ci. d'accord sa gis-gis ci proposition bi ñu def ci dialogue bi ni dañu bëgg ñu amnistier. Karim ak Khalifa Sall opposition bi moo proposé loolu pouvoir bi nag am na nu ñu ko gisee société civile bi ñoom d' accord nañ ci loolu parce que dañu gis ni ne serait-ce que sax pour euh, pacifier l' espace jar na ko. man awma commentaire bu may def ci loolu. parce que ah man je suis demandeur de rien mais sa gis-gis tey bëgg nga ñu amnistie xalifa Sall waaw wala déet. man su ma gis-gis mooy na fi Macky Sall jógee. mais man man man waxuma ci wax xalifa Sall. comme moom def na lu mu def. lu def cest à xam nañ ko. cest dëkkaloo doomu góor fu mu dëkkul. gal ko bañ bokk ci élection yi. avec une brochette de magistrats yu ñàkk fay fayda. loolu mooy wax ci maintenant maintenant maintenant ma ñëw rek dama ne amnistie bi. da ngay amnistier ku la ko laaj. xam ngeen mosu leen dëgg Khalifa Sall la ci amnistie mais mais mais dialogue bi ñoom ñoo bëgg jàmm. non déet man ñu dem ci dialogue bi man je reviens à man gëmuma dialogue. naa la wax tax gëmuma dialogue. wax naa leen sànq dañu woote dialogue. ñu dem ba ci biir moom mu copté cinquante personne mais est-ce que xam ngeen ci ñu mu copté ñooñu xam nga moom ci boppam nee na day xaar qu'une majorité sa dégage mais wax naa leen dafa woote dialogue ci biir dialogue bi mu indiwaat cinquante personnes ñu mu copté te opposition bi indi wuñu kenn mais am na ku mu copté mais kooku c'est inadmissible mi ngi tudd Seydou nuru Ba d'accord kooku ma ñëw rek moo nekkoon monsieur parrainage mais kooku il est membre de la Sénat mm-hmm. les textes de la Sénat dañ ko tere moom dañ ko interdire moom mu mën a bokk dialogue bi ba di jiite commission. mais tey xanaa yow bëggoo sa candidat bokk ci élection locale yi di ñëw. man suma candidat incha allah dina bokk dina falu. mais il faut nañu amnistie amnistie dinaa la wax dara loolu du wax ci si tant que Macky Sall li ngi wut mandat Khalifa Sall du bokk man du ma gune ba ñuy nax te man du ma waxoon. kon gëmoo amnistie boobu ñu dama ne. man pour que Khalifa Sall bokk fokk Macky Sall bañ a bokk. donc dafa ragal dafa ragal boo tax instant bi ñuy jéem a def ay lobby euh, en collaboration ak ñi nga xamante ne ñoo di. waa tant que Macky Sall est au pouvoir te mi ngi dox di wut ay mandat kenn du fi amnistie Khalifa Sall kenn du fi amnistie Karim Wade. est-ce que finalement yi muy def. yaa ngi naan que tout à l'heure aux gens des contre-vérités. tout à l'heure est un homme qui manque de courage. sur le plan politique et qui avance. en mettant en avant des principes qui, qui n'ont rien à voir avec le courage, les valeurs, etc. Et je, je répète et, l'opposition dans tout ça. Parce que bu bu fekkee moom lu ko saf mu def ko ça veut dire que opposition bi dañu lajj wala amatul finalement au Sénégal. Moi, j'ai déjà dit, man j'ai dé, j'ai dénoncé des dealers. Et je ne reviendrai pas dessus. tudduma tur man les noms ne m'intéressent pas man kenn safuma fi man askanu Sénégal ñoom ñoo ma ñor Macky lu muy def tey au Sénégal. il le fait avec la complicité d'une certaine partie de l'opposition ñu nga xam ne ni ils ont trouvé comme prétexte le dialogue mais ñu ngi yoonal pour dugg ci gouvernement union nationale te man du ma waxantu nee nañ ma Barth xulloowuma kenn xasuma kenn saaguma kenn wante kenn fesul suma bët man suma ma gisee nen man la nen a ngokk j'ai vu des dealers en train de dealer en plein jour je vous ai kon opposition bi nekk dialogue ba di demander à ce que ñu amnistie Khalifa Sall ay dealers lañu. man xam nga dama tuddul kenn. ah dafay war a leer xam nga dama bëgg nga déglu da ngay déglu. bu baax ma sœur xam nga dialogue bi bu muy démarrer. Mhm. da nga dégg benn concept da nga dégg dialogue national dialogue politique du noonu. tout à fait nga dégg ay opposants ñu la ñun nekk dialogue national. nous sommes ko dialogue politique. Mhm. du dialogue politique bi jeex na jeexul ñu gis ay nit ñu ne ñoom ñu ngi dialogue national bi ku leen fa yónni kuñ fa toogal kuran moo leen jox mandat mm-hmm. ñu dem dialogue national dama ne ku bëgg yoonal xool nooy duggee gouvernement union national soxlawul faire tout ce cirque là damal nga liggéeyal président Macky Sall mm-hmm. parce que tu n'es pas un opposant un opposant il s'oppose man président Macky Sall su ngeen ko waxoon suba Barth day dugg ci gouvernement bi moom ci boppam dina leen wax mënul nekk parce que Macky Sall xam na que dans son plus profond des rêves du ma mësal liggéey ak moom moom xam na ko. Euh, finalement gisoon nañ également ci opposition bi surtout candidat yi nga xamante ne ne ñoom euh, ñoo coalisé wu def bloc pour euh, faire face à Macky Sall mais gëj nañ leen aussi tam ñu dégg est-ce que tam du loolu mooy waral tam fu mu toll nii waa ji lu ko neex mu def. lay def parce que je reviens à ce que je vous ai dit. L'opposition sénégalaise joue son une partie de cette opposition son jeu mais c'est des gens. mais ils savent pourquoi ça les dérange. Parce que quand on fait preuve de lâcheté, de fumisterie, quand on est dans le complot et la ruse en permanence, il ne faut pas être choqué par le comportement de certaines personnes. Je reviens à ce que j'ai dit. Mais également, seen leader aussi gëj nañ ko gis nga xamante ne tamit moom it gëj nañ ko dégg mu wax. effectivement. daal moo tax aussi moom itam muy noppi tout le temps. mais je pense que man suma leader. Mhm. Euh, ñëpp xam nañ que mi ngi bitim réew. Mhm. gën kaso il a fait sa tournée ñëpp gis nañ ko dem ci ay kër diine. waxtaan ak ñoom remercier leen ñaanal ko. il a fait sa tournée à l'extérieur dem nuy nuyu ay xaritam bu ci des il fait son bilan médical son check-up. parce que soo bëggee jiitee réew da lay wóor ne ni yow mii da ngaa ànd ak wér gu yaram. man tëdd naa kaso juróom benn weer mais dama génn j'ai commencé à avoir la vue qui dé euh, qui diminue. tout lépp la ñuy wax rëbës. mënoo jël ñit bu mosul xam kaso nga tëj ko ñaari at ak lu ci tegu. mais su génne day dem au moins dem saytu yaramam gestu yaramam ça c'est élémentaire ensuite bu ci des Khalifa Sall di ngeen ko gis di ngeen ko dégg parce que ci ay fan yu néew il va structurer son mouvement politique dama bëggoon nag dalal seen xel dans la tête de Khalifa Sall l'objectif c'est pas de se lever et dire il doit être chef d'État fa rek laa yem ci wax ci ah non non non kon mën nañu xaar keneen nekk candidat. ku dul Khalifa Sall on lui a imposé un combat. c'est quoi wallaay nañu xaar keneen nekk candidat. dama ne dans la tête de Khalifa Sall il est question de restaurer la démocratie au Sénégal. il est question de travailler sur l'humain le capital humain investir sur l'homme mu xam di ràññee mën a yor boppam. mais dans un il est temps que sénégalais yi ñu xam lan moo leen di jiite tey nii. ñu ràññee parce que waa ji dañ ko fi jëlee ah. dañ ko fi jëlee par nii wala par naa maintenant Khalifa Sall devient président de la République ou pas ça ça de la volonté divine mais je reviens à ce que j'ai dit ñun kenn duñu nax tant que Macky Sall est président du Sénégal te ni ngi ci ay tànk troisième quatrième mandat parce que dañ jàpp ne que pétrole bi tant que naanuñu ko ba mu jeex tant que gaizuñu gaz yi ba mu jeex duñ fi jógee je reviens à ce que j'ai dit l'objectif c'est de travailler à faire partir Macky c'est clair sànq yaa ngi ko doon tudd muy rapport Cour des comptes yi génn ak 6 ans de retard euh, président Macky Sall ne que dafay teg commission bu koy saytu waxoon na fi également ko du làkk kenn wala muy protéger kenn ku fari ci moom te ñi ñu ciy dégg ñu ci ëpp ñu ngi ci côté am est-ce que gëm nga wax boobu. Euh, nu ma koy waxee ci wolof. qui se ressemble s'assemble. waaw sàcc fu mu gis sàcc da koy jàppale. sàcc fu mu gis sàcc di sàcc da koy jàppale. ça veut dire. ça veut wolof bi nag xóotul wante daal. d'accord sàcc daal ab sàcc rek lay des. rapport euh, sàcc fu mu gis mbokkam sàcc. donc jàpp nga ne du am suite. ban ñu ciy la dara du leen ci fekk. su ma baat ci kaw ma waatal leen ko fii ah. Euh, association de malfaiteurs. yow ngay jiite association de malfaiteurs. yow da ngay ànd ak malfaiteurs yi rek noppi. waaw dara xoolal dara du leen ci fekk. Mhm. wante nag dara du leen ci fekk. ci nguur gi waaw. Mhm. ñoom ñëpp xam nañ seen dossier xam nañ seen tur te amul prescription ci détournement de deniers publics.